j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte hyper bien comme d'habitude yéen a ngi ci seen émission hip hop bien sûr avec votre Kenza l'animatrice de luxe la grande chroniqueuse hip hop nekk émission boo xamante ne nii permettre ngeen di découvrir toutes les infos et actus de vos rappeurs préférés tey nag dañu jógee waat biir ñëw ba fi nga xamante Médina précisément euh, rue 31 ah ñu ñëw seesi fi un jeune rappeur Kaylor il est l'invité du jour dans votre émission Hip Hop et dinañu waxtaan ak moom ci lu bari sa carrière ses projets à venir lépp li ngeen bëgg a xam ci Kaylor da ko xam tey donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Kaylor Mamène bëggee naa la frère. mi ngi cool. ñu ngi sant. naka Medina. waaw Medina mi ngi nii ah, comme dab waaw di neex fi dëkk neexee comme ni ko gars yi waxee. man moom xam naa ci ma ma héberger ma indi ko waaw mën na ñëw. non jarul indi sax man man man man mën naa fi ut ay bagage man naa am fu ma dëkk rek. waaw dee na kon doo ñibbi yaa fi. Mm. di la jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi Kaylor yaa ngi ci sa émission hip hop 221 ça fait énormément énormément plaisir. yeah waaw ça fait plaisir ndax Sister Kenza yàgg nañ di ko seetaan xam nga di gis chronique yi muy def xam nga mu doon benn affaire boo xam te ne am na trop importance si game bi quoi waaw yàggoon nañ bëgg xam nga waaw toog ak moom wax gars yi suñuy projet comme ni nga koy defee gain waaw loolu moom ça fait plaisir quoi. alors ça plaisir Kaylor te bu ma la laajoon kan mooy Kaylor lan nga may tontu. waaw Kaylor mi ngi nii ah. benn booy xam nga. bu sokkee ko Medina xam nga. teel a bëgg game bi teeloon nekk ay grand bi def hip xam nga mu teel ko gondi mu nekk si nekk si di xuus ah keeloor di xuus di xuus ba xam nga waaw yeggaguñ fenn nag mais xam nga gars yi gis ñi ngi apprécier gars yi doon jàpp kañ commencé nañ apprécier ndànk-ndànk kon du ñu def dara lu dul foncé quoi waaw noonu la demee. mais d'où vient le nom Kaylor Kaylor sa tur bi garaaw na de Kaylor mooy lan. Kaylor fekkee ñi di seraan football mooy loolu noonu garaawul si ñoom waaw parce que man Keylor avant rappeur Keylor joueur la woon waaw gardien de bii la doon def xam nga bi muy football ñu koy woowee Keylor mhm. waaw donc euh, bu ñu demee ba décider dugg ci game bi ñu ne pour pourquoi pas ñu niir Keylor bi pour mu gën a yomb quoi mhm. waaw pour ñu pour repère bi quoi genre boo déggee Keylor da ngay xam ne booy bii nii nekkoon Cneps excellence di góolu mhm. Keylor lañu ko doon wax waaw boo gisee kanam gi rek du jaar ngay waaw du jar ngay xalaat da ngay xam ne Keylor a nekk nii donc Keylor Navas bi mooy keeloor bii nii toog di rap ko. lu tax nga ba football. waaw football da daa mel ni de ñuru woomu footballeur de ñuru woomu woon ku aay kii mënoon na football yéen. ah mënoon na way na daan na dugal ay bii wala daan na daan ci génne équipe am gardien daan na ci génne équipe am. waaw daaw na ci génne équipe yi di ko faral dañ lay faral. gardien bu doon dugal sax laala wax nga naan génne. ñii leer na ma dañ lay faral ñii dañ lay faral. dugal non xam nga rek waaw dañ dem ba xam nga. peut-être temps bi muy laaj waaw amatuñ ko te même bi ñu doon football sax ñi ngi doon hip hop waaw donte du woon lu gënuñ woon féete si hip hop bi torop ñi ngi woon si football bi torop mhm. mais ñi ngi doon hip hop donc bi ñu arrêté carrière football bi si lañ gën a concentré wu si hip hop bi yaa ma gën a xam ñu retenir nag keeloor bi quoi. Mhm. kañ nga dugg ci biir game ak lan moo la ci dugal. waaw game bi comme ni ma la ko expliqué sànq rek si début bi ñu ngi si dugg mu maanaam ay côté 2015 2016 ans ñu ngi siy bëgg a waaw mais sama mag sama grand mooy bokkal ndey ak baay day hip hop man sama gaale gaale hip hop la. Mm-hmm. waaw même sama père hip lay bëggee. Mm. waaw depuis Alexo Diouf ñoo ko bàyyi fekk ñu ngi am ñun ay 10 ans toll ak booy bi waaw. mi ngi naan booy bi seen morom la lu tax doo leen def hip hop comme moom. Uh-huh. kon xam nga ne kooku noonu bu hip hopul lay tooñ. waaw pour dem waaw léegi si lañ bëgg affaire sama gaale moom hip hop rek moo fay daw quoi. di lañ ko bëgg di bëgg di màgg di màggaale moom ba dem xam nga des fois ñuy def ay freestyle xam nga di bindantu ay texte muy jàll xam nga. waaw après ñu commencé bu ñu demee lan collège waaw bokk fa ak ay quelques boy xam nga ay ñoom Zézé ay Dos Peros yooyu noonu xam nga si lañ nee nañ formé benn crew comme ñoom dañ ko doon dund man ma koy dund la affaire yi commencé quoi waaw foofu la Kelor débuté mun nañ ne 2015 2016 la quoi. 2015 uh-huh. 2016 ci sa biir wax sànq dégg naa ngeen ne euh, ci ngeen formé benn crew crew boobu noonu dafa tas wala nan la fa demee. crew bi waa du tas boo xamante ne mooy loolu mais genre. parce que bi ñu koy créé maa ngi Thiès ndax sama collège Thiès laa doon jàngee collège après foofu lañ ko doon defee mais bi ma demee ba war a jógee foofu dama ñibbi si léegi distance bi moo gënoon waral xam nga job bi mënatul demee noonu si laa xam nga féete fii waaw distance bi daal moo xaw a kii crew boobu quoi mais ñoom ñu ngi job li ñuy job ba léegi waaw man tamit maa sama carrière teewul xam nga ñu ngi connexion des fois ñu laal fit affaire yooyu noonu waaw 2015 2016 euh, ba 2022 ça a beaucoup duré yàgg nga ci game bi ba nga dugg euh, commencé sa carrière ba léegi ñaata sound ak ñaata clip vidéo nga jot a génne. ñaata sound sound yi bëri na. parce que def nañ ay feat def nañ ay sound solo waa clip vidéo yi mën nañ ne 4 waaw mën nañ ne 4 clip vidéo waaw waaw yi nga xamante ne am nañ tamit ay vidéo freestyle waaw bu dee ay clip nag def nañ 4 clip xam nga yu mel ni ay. meeg maan yi yu mel ni ay sutura xam nga yu mel ni ay waaw di la fàttali aussi ne maa ngi si team bu ñuy naan Medju Squad quoi waaw donte maa ngi def carrière solo waaw maa ngi si team bu ñuy wax Medju Squad boo xam ni dafa boolee xam nga rapport u Medina yi booy yi noonu waaw benn cinq avenir u xam nga di def nag benn job bu nice j'espère kili clip ñu mujjee génnee waa si team bi lañ ko defandool quoi waaw waaw sànq ci sa biir wax nee nga danga nekk ci famille boo xamante ne nii euh, ay lii la yenn ñëpp hip hop ngeen di dund kon rap dafa war na mën a yomb ci yow. torop dóorul ñu freestyle ñu xool. waaw. bind bi kawe mosoo gis ma tux bon flow bi tax bum bum ba tey gisoo kon eh du soo woon kenn bi may saaga nday kon du ma xool si kenn bu may rey san eh. uudeel laabul ma ñod di deer gën la ñi me guerre ni militaire seentu weer ah lebal naa rap bu ma fayee ma riche normal nga sànni pic maa ëpp coow ba su 4 avril jën lu mu mën-mën fee du si ndox bu tàng man dooma romb si kaw bit dum sa ma romb baay dama sikk ni gom si tat man di rap def tat maa ngi rap lakk sa gat paak tat laa lay fa gat suñu succès sa taatu gel bi du ko fekkee jaratul dute booy saay-saay lañu ndekkee nii lañu fi nekkee ubbi saatu boo yëpp faytee ndax fu ñu rappee sa maama affiché fa mbégte booy keeloor mi dinaa wa yéen yéen doo leen tàccu seen artiste bi xanaa yéen ah. mbaadu lii miin nañ ko ci yow. waaw waaw noonu la demee tàmm nañ ko xam nga rek. Ah. waaw noonu la demee waaw. voilà alors sànq euh, ci sa biir wax nee nga say sound jot nga cee dóor ay featuring yan artiste nga jot a dóoral ay featuring. waaw def nañ featuring ak ku si mel ne Dos Peros ak ku si mel ne Rimka xam nga. waaw def nañ featuring ak euh, ay Lilxa. waaw yu pareegul quoi am na ay fit yu yu ñëwagul aussi waa am na yu pare projet yi mi ngi si Milkman Milkman xam na nu mu demee waa projet yi nga fa am pagaay xëy na waaw heure bi la ñuy xaar mu jot rek ñu ñu bomb ko quoi bon di profito di ko saluer de passage moom mon ami mon frère Milkman borom Medina voilà moom lu mu tourné baaxut moom moom vraiment il est un frère extraordinaire alors Kaylor est-ce que mën nga ñu wax ndax da nga signé ci benn studio de production musicale wala instant yi da libre signé woo Kaylor il libre actuellement waaw signé wuñ mais ñi ngi job ñi ngi job ak suñu grand bu mel ne Milkman mu ubbil ñu bunt yëpp nag waaw Milkman waaw amul prise rek dañuy ñëw quoi mm-hmm. waaw xoolul li ne suñu poche wala dañuy ñëw rek prise quoi franchement waaw foofu lañ nekkagum en attendant mais signé wuñu waaw waaw franchement. Keylor lu tax signé wu leen. waaw Keylor waaw. da ngeen a da ngeen a gisul lu leen doy wala nan la fa demee noonu ba signé góole. ñu doy ñax ñu gis lu ñu doy. Mm-hmm. waaw xëy na daa am lu ñuy xaar lu ndaw rek. waaw bu yegsee rek incha allahu rabi daañu signé quoi bu soobee yàlla waaw. donc mën nañ xam ne dans sous a de temps mën nga signé ci benn studio. peu de temps oui mën nañ signé waaw mën na nekk de waaw na mën na mën lu mën a nekk lool sax uh-huh, alors gars yi ba tey ci seen émission hip hop 221 il est l'invité du jour moom Kaylor Kaylor euh, étant un jeune nga débuté sa carrière en 2015 2016 ba 2022 comme ni ma ko waxee sànq yàgg na est-ce que jot nga génne projet album EP wala mixtape. non dafaguñ projet nag parce que pour ñun doy pour ñun jotagul quoi. waaw parce que ñun bëgguñu def projentu rek comme gis nañ comme yenn booy rappeur niñ koy defee gis nañ ni booy ñu ngi def ah, comme ñan kon ñan booy yaa ngi fi en pagaille waxal comme siteel ñu ci ñu xool en pagaille xam nga nu mu demee yaa ngi si game bi booy man man man xaw ma dara de man man xaw ma si dara waxuñu rek booy ñu si booy seet xaj bi yëpp dañuy gis ni que diw def na projet pourquoi pas ma def projet te ñun gémee wuñ noonu quoi bëgguñ def projet après nga sànni ko YouTube ñëw di gis dañuy topp tendance bi en fait waaw ñun toppuñ tendance ñun dañuy xaar mu jot waaw loolu ñu xaw a sonal quoi ñun moom dañuy xaar mu jot bu jotee rek incha allah projet yi mais Milk xam na ni li ñu yor mën nañ ko def sax double album du jeex. Uh-huh. li ñu yor si ay sound yoo xamante ne mën nañ ko def double album quoi wala ñu def ko mixtape wala mooy loolu waaw wala EP waaw mais xam nga rek jotagul parce que xam nga booy keeloot booy set waaw public bi xamaguñ ko lool. te ñun bëgg nañ prouver ba public bi xam ñu parce que ñun dañoo bëgg lépp lu ñuy def rek lépp lu ñu am si rap rek mu doon lom te ne moo ñu ko may mais du loolu noo xam te ne dañuy lijjante suñu xaalis ay di joxe fii ay di kii ay nga waaw waaw yaa ma gën a xam mhm. Mhm. moo waral daal projet amagul quoi mais xam naa ne bientôt incha allah rek parce que xam nañ ne incha allah 2022 bi mhm. waaw li ñu bëgg dinañ ko am quoi pour génnee projet bu soob est-ce que mës nga teg nañ ko fi ak gars pas keeloor keeloor tegu ko keeloor kase mais xam nga rek team yi waaw uh-huh. xam nga maa ngi si biir teamu hip hop hip hopeur yi nekk Médina yëpp aussi waaw des ñu def ay affaire ay saafa ay ay ay ay concert ay yu mel noonu quoi uh-huh, waaw. est-ce que mës nga participer ci concours yi comme ay flow up ay ay ay yenn concours yoo xamante ne nii dina dina may artiste jeune talent yi ñu gën a mën a wane seen bopp gën a mën seen beneen est-ce que mës nga participer ci genre concours yooyu. waaw si si parce que booy seet. rap wolof moo raw challenge bi maa ngi si woon quoi j'ai été sélectionné waaw mais malheureusement dama teel a toog waaw maa ngi woon aussi Galsen freestyle la woon defe naa yow yaa defoon spot bi waaw maa final woon man jour daal ak damay fàtte keneen ki quoi ñoo mujjee génn trois trois kii trois premiers yi aussi participé naa si ay pas mal de concours même kii mat mi mat mee vidéo bi kii bii di ñëw waaw demoon naa présélection yi jàll naa instant maa ngi toog di ko xaar waaw waaw participé naa si ay concours yàlla defagul nag ñu jël concours carrément mais ñu ngi ñi ngi jege ñu ngi jël ay deuxième xam nga xëy na bu jotee rek incha allahu rabbi daañu ko jël bu soobee yàlla. lan nga jàngat ci concours yooyu noonu lan nga fa jàngat étant un rappeur. jàngat naa fa ay avantages comme si ay comme ay inconvénients aussi parce que exploitation yi daf si xaw a bëri. Hmm. ak euh, dig la loo xamante ne boo boo gañee li nga war a gañee après doo ko am quoi. waaw may profité di lancer waale message di wax euh, ñi nga xam ne ñooy organiser yi ni mel quoi ñu xam ne grand dafa métti tey jii li ngeen ñuy defloo coono bi ñu siy daj xëy na tey jii boo bëggee ñu ñëw fee g wala ñu ñëw fee ne def prestation xam nga li ñuy transporter suñu transport doo ñu ko jox ñooy lijjanti doo xam fu ñu koy fu ñu koy jëlee underground dafa xaw a métti après xam nga ànd ak say nit andi après nga xooslu xooslu xooslu ba am li nga xamante ne moom lañ moom nga moom nga waroon am par exemple nga jël wala nga jël deuxième waaw ñu war la jox say récompense di la dawloo war a doo si jot waa pour man ñun moom dañuy rap pour pour passion quoi par amour la ñuy rap mhm. waaw donc boo ñu digul sax dañuy ñëw quoi mais li gën a rafet mooy boo diggee boo digewee dara nga def ko quoi mais nga diggee ba pare nit ki jël après da ngay gis benn page teg benn affaire xam nga mhm. yow nga ñëw jël ko wala nga ñëw sori si nga war a am récompense après boo ko contacté waatee da lay naan non page bi dañ ma ko jaayre du ki la doon defar concours bi yaa ngi fil mhm. loolu noonu day xaw a con ñu bàyyi si xel quoi parce que underground dafa métti mhm. uh-huh. underground dafa métti il a parfaitement raison joxe na passé na benn message boo xamante ni képp ku ko déglu war nga cee bàyyi xel bu baax a baax underground dafa métti ils font de leur mieux pour être parmi les plus grands rappeurs du Galsen ils font de leur mieux pour mën a teg seen empreinte ci biir game bi donc nañ boo xamante ne c'est intitulé MMNF man envoyé woon nga ma lien bi bien sûr mais dama ci doon dugg ñu ne dañ koo supprimer nan la fa demee noonu. yee ñaax déggoo da si xaw a am nag quoi. Hmm. parce que xam nga Milk dañuy jow ak moom suñu ganaara mën nañ ne signé wuñ si label bi mais daanaka ñoo ngi fa. Hmm. waa mais bi ñu jëlee moom moo job vidéo bi ñu ko jëlee. parce que ñun dañuy def bu ñu génnewee vidéo moom bu ñu ko joobalee hmm. après da koy dugal si page am quoi mais dab ñàkk déggoo dafa am parce que man après sax laa dégg ni mi affaire mi ngi si page Dof Record si laay doog a ne nag milk pour moom génn na moo tax mu dugal fa mais dafa nekk loo suba la war a génn si vendredi bi incha le mars léegi loolu milk man sib moo waral xam naa mu supprimer ko quoi waaw moom da dugaloon pour moom ñun génnee nañ ko quoi loolu ñaax a bu ndaw la rek waaw bu ndaw a ndaw mais suba incha nañ ko kii dina officiel si page yëpp ku ko soxlawaat aussi si page Dof Record boo fa duggee di ko am que jamono ji ñun ñëpp gis nañ fu mu toll quoi mm-hmm. waaw parce que nit dafa xaw a lëndëm jamono ji xam nga ñi ngay jox confiance ba mu jaral la nga xam nga mm-hmm. tey la lu bari après ñoom ñooy ñëw décevoir la mm-hmm. waaw foofu la ñuy waxee te sant bi nag mu nekk loo xam te ne dund la quoi waaw dund la li ñuy amul lenn loo ne dañoo xalaat rek ne nañ ko créé bind ko si noonu dañu xool li nga xamante ne moom lañ doon dund ñu rab ñu bind mais xam nga ni li ngay rab li ngay dund dafa neex torop ndax boo koy booy bind sax yow booy bind waaw booy bind sax yow da ngay inspiration bi day gën a kii parce que du loo da ngay xalaat di sonn waa da nekk di xool li nga bind li nga dund ngay bind lool noonu ba pare day nekk dëgg boo tegu si bit bi da ngay sentir ne yow yaa ngi rap quoi franchement uh-huh, waaw. donc vidéo bi suba lay disponible le 11 mars. incha allah waaw suba suba incha allah. yan projet ngay waajal. waaw ñu ngi waajal ay projet ay projet ah parce que surtout mag tim bi xam nga ay réem ka ay Mofaya di leen bége waale di profité waa comme ay Sipion xam nga ay Wizzy bo gars yi ay Saliou xam nga boo limee da ngay juum. Mm. waaw Metsu Squad bi daal mi ngi waajal. ñu ngi si ay projet ak Metro Squad bi war a gee def ay vidéo xam nga ay saafa ay ay ay ay EP ay waaw ñu ngi waajal du garaaw nañ ko xaar tim bi tim bi tim bi tim bi nañ nañ ko xaar parce que mm. waaw du doon loo xamante ni day ñëw nii rek comme yenn booy la ñuy def créer tim rek après seeyaat noono mm. day ñëw def si quoi waaw te loolu c'est très très très très bientôt incha allah gars yi nañ si teg seen bët incha allah ah. Taylor moo ko wax ñoo ngi xaar nee na à très bientôt rek dinañ ñu génneel loo xamante ni projet lay doon donc ñu ngi xaar ak doole mais Taylor étant un rappeur nan nga gisee hip hop Galsen côté négatif ak tamit côté positif. waaw hip hop Galsen côté négatif côté côté positif man li ma si gis waaw bëri na parce que maa ngi gis ne man par exemple hip hop am na si lu ma changé lu bëri. waaw xëy na tey ji am na ay nit lu ñu ma doon jéem a wax wala lu ñu ma doon jéem a jund duggul sama bopp mhm. tey jii bi moo duggee si hip hop di déglu ay sound quelque quelque MC mhm. waaw am faj na ma quoi mhm. waaw mais waa kooku loolu noonu lu positif la xam nga am na lu mu changé si man teg j'espère que man aussi am na ñu si am samay morom yoo xam ne am na lu mu def si ñoom aussi waaw mais côté négatif li ma gis mooy na ñu bàyyi ay kii bit bi bit bi dafa am tama dafa am jéembe dafa am kii nii parce que pour man musique li nga sentir la quoi waaw pour man musique li nga fil la en plus tey jii nii bu ñu waxantee dëgg xale jigéen yi nga xamante ne ku si def sound da ngay jéem a da teg si boom bap ne na ngay yegg yedd xale yi wala da nga yegg boo yedd booy tuxkatu bu moon yi affaire yooyu noonu yaa ngi fil mais ñoom du ñu déglu loolu noonu tey jii bu dee boo ko defee si mbalax ñu déglu ko est ce que doo jéem a andi benn bit bu mbalaxee yow leer na ne dinañ ko déglu ndax dinañ ko challenge nga profité waale say message mais non non duñu def loolu dañuy dafa féegee bit bi dafa féege donc nañ ko teg si bumbaab bi boo ko tegee si bumbaab bi duñ ko déglu amul chance conseil woo kenn mu ngi mel ne wax ñu toog nii duñ la dégg mm-hmm. waaw ñu bàyyi affaire de ay rythme ay affaire de kii waaw ñu ku nekk ni mu ko sentiree rek mu defee ko noonu quoi waaw waaw bu négatif boobu noonu laa am quoi mais sinon waaw côté positif ñi ngi évoluer gis ni que beat yi nice clip yi surtout clip yi ñi ngi am qualité ñi bàyyiwul rek incha allah gis nañ ne dina dina gën a nice daal. Mhm. Uh-huh. Kaylor ban artiste ngay rêvé defal featuring instant yi nii. laay rêvé defal featuring nii nii nii waaw bëgg naa def featuring ak Dip nag quoi. waaw di ko salué waale de passage waaw moom moom mooy sama rapport quoi. Ah. franchement parler. Mm. waaw mooy sama rappeur waaw su ma mënee am fit ak moom damay jël quoi franchement waaw. Dip kese. non mun na suñu amee ak ñeneen mais rêve boobu comme nga rêve nga laajte waaw rêve nañ def fi featuring ak Dip quoi mais bu ñu amee ñeneen tamit yoo xam te ne waaw am na ñu ñu fil si gain bi ñoo xam ne mun nañ def ak ñoom mais rêve bi def featuring ak du Doundou Guiss waaw uh-huh. Alors, il se nomme tout simplement Kaylor et l'invité du jour dans votre émission Hip Hop 221 Kaylor ça a été un plaisir euh, ñëw ba fii Medina waxtaan ak yow ci lu bari fi nga débuté ba fi nga yegg si tey di la wax bonne continuation game bi moom ñëpp ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk na ci ku nekk bay sa waar après bon li ci des yàlla dina ko mottali. waaw waaw yow aussi ñu lay bëgg ah, di kontaan si yow parce que yàgg nañ la suivre. waaw ngay def affaire bu nice si game bi quoi xam nga di sulli surtout ngay sulli ay booyam te ne xamu leen xam nga loolu noonu lool loolu ñun dañ siy kontaan parce que man booy seet sama playlist lu si ay rappeurs yu mag nekk sax bëriwul quoi ay boo yoo xamante ne kenn xamu leen di def lu nice loo xamante ne xëy na tey jii nii bu ko bu si ñu si war a jàpp jàppoon dina am fu mu yegg quoi waaw damay gis ngay sulli des fois danga may découvrir loo ay artistes yoo xamante man dama lay mais mi ngi nice yow aussi di la waaw bëggee bu baax di bëggee aussi gars yi ay ñoom grand milk gars yi siy jàpp yëpp mafia bi yaa ma gën a xam waaw ay Medju squad xam nga Thérèse bi Gibraltar xam nga Colobane Centenaire. Gueule Tapée waaw Médina bi moom amuñu seen fay quoi. di bëggee ñëpp. alors kontaan nañ ci moom bu baax a baax moom Kaylor gars yi on vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne YouTube seen émission hip hop 221 chaque fois nii lay demee rappeur bi fépp fu mu nekk dinañ ko fa fekk waxtaan ak moom ci lu bari donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker c'était